sinon naka koor gi nan ngeen ko dunde am na ñuy dàq koor bañ koor gi jàpp leen am ñu koy gàttandu am ñu koy gunge am na ñuy góor góorgóorlu si koor gi am na ña sa des mooy sama genre gi. loo xewle sànq léegi yaa ngi taxaw ci buntu di xoole rek. xam nga tamit nga lii tamit mooy loolu quoi heure ndog jot na waaw war na mën a jot waaw mais pas bu nekk fii di jàkk yi di noddu keroog dama ko romb mu naan naa ko gasal buntu këram ma bañ mun ma naal jàpp ndax xam naa ko ragal xiif nga waaw loolu tax léegi heure ndog bi da koy téye di ko téye mu paase waaw lépp pour ñaawal ma waaye ba ko man léegi jant bi laay xoolee ndog jant bi buy dugg mu ko gisatu ak ndog saa yi moom may dellu cosaan quoi ma ngi njëkk ñu noonu def noonu laay def bi daal laay xool buy dugg may ndog. waaye looy xool ay jant du boobu ba léegi jàkka ji la ñuy déglu bu noddee rek ñu dog. waaye sa ragal koor gi jant baa ngi nii ni fàng fàngaalal heure bi fan la jant bi di duggee boo xiifee rek nekk di wax lu kenn xamul ah yore gaaw ngaa saali. tamit lii kenn xamatul lu mu doon waaw kenn xamatul lu mu doon parce que bu njëkkoon temps bi rek ñu ca kay suba ngoon bu gaaw mais léegi day mel ni une semaine la quoi diggante cinq heures timis rek comme une semaine temps bi du dem waaw nank-nank lay def minute par seconde lay def waaye bàyyil ma sama yoon nekkatu si loolu yëpp xooltuma montre xooltuma télé xooltuma dara télé yi moom dañuy dawal publicité ba pare balaa ñu ko ko ndog waaw boog man noonu naa toog di xaar dañuy dawal seen publicité yu du jeex du xaaj saa yi man bàyyi jant bi laa koy jàpp de fii laay toog jant bi mu ko gisatul rek ndog waaw wow. lu yàkkamti de dog bu jotee rek di nga dog télé yi rajo yi yëpp ngi fi daa jotagul lekk waaye bu jotee rek di nga dog waaw jant bi moom mi sax yenn fu des day de ah jant bi tamit moom it des fois day day day a dugg waaw météo tamit ñoom it war nañ xool loolu lu mu doon parce que saa yu ma ne moom fi taxawee ba léegi moom fi taxawee ba léegi fu mu nekk nii la nekk puusul paasul ah te tamit nga xamul lu mu ni ah, a a a ngay wax jant bi ngay waxal de. sa raxas nag day faq bool yow boo xiifee rek saali ah nii ne war nga koo bàyyi. waaw village bi moom boobu ñu xam ne man déglootuma leen man déglootuma jàkk ji de boobu ñu xam ko waaw man si jant bi laay xool sama heure waaw parce que paa buy noddu dafa war a jege jàkk ji waaw këram ak jàkk ji waruñu soriantoo te moom it dafa war a noddu ba pare daa ba pare ci noddu ah, booy wax ñu ne naka tàggu xool ak koor gay mais teg yu ngeen xamul te fekk yow dëgg ngay wax bi jant bi xam naa yàgg naa fi trop cinq produit maa fi taxaw moom it a kii tuuti moom it ah moom it dafa war a kii ah tamit kenn mënu wax lépp daal sinon naka koor gi nan ngeen ko dunde am na ñuy dàq koor bañ koor gi jàpp leen am ñu koy gàttandu am ñu koy gunge am na ñuy góor góorgóorlu si koor gi am na ña sa des mooy sama genre gi maanaam ñi woor woorlu si kër gi te bu nu génnee lu nu romb jën